ñaar xam na ni loolu wax ko ëppal la te ñoom bëgguñu légende ci seen tariqa lan la ca teg daf yaa delloo si baatu jàllaabeem ba mu yeggal déglu ni tekk ni tekk ba mu yàgg mu wolof day ku ñu fekkul woon nga pare ci sa daa ñu xëy ji la jey ba nga faf doon ganaar ah, ah, ah. góor a ñëw kat di ah waaye dimbali leen sama góor بارك الله فيك سيدي ah ndigal la de ndigal day moo nu ko sañ loo bu dul ndigal du nu ko sañ الطريقة طريقة الإذن رغم واظب عليها واظب